ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal di ñaan yàlla yàlla boole defal ñu njéggal mu mel ni tey nag ñu ngi fii ci Medina Fall macha allah ñii toog di mouvement jeunesse tidiane bu Medina Fall. ñu àndandoo nag di leen yëgal bis boo xam ni moom la ñuy def muy xadara populaire di xadaratul jumaa ñu koy def incha allah sa euh, ajjuma 11 février incha allah mooy amee fii ci Medina Fall ca buntu centre Don Bosco bu ko defee bala ñoo sori dañuy jël kàddu gi. jox ko oustaz Souleymane seen macha allah oustaz Souleymane. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk jullit yi rawatina mbokk taalibe cheikh yi nga xam ne ñu ngi fii ci Thiès ak li ko wër ñu ngi leen di nuyu comme ni ko sëriñ kër Dieye waxee rek bés baa ngi noonu la onze incha allah ñu koy def nag ci ndigalu sëriñ Babacar Sy Mansour xalif général de tiijan ak ay rakam ak mbooleem njabootu Cheikh El Hadj Malick yëpp. tabaarakallaahu di ko defit ci ndigalu suñu baay sëriñ Mouhamadul Munir al Khalifa ci ndigalu it suñu baay maam Khalifa Kebe tabaarakallaahu fii ci Thiès ñu ciy woo itam alxaaji Pape Amadou fay di président fédération de daayira Tidiane de Thiès et banlieue waaye di ko yëgalit alxaaji Boubacar Samb mi nga xam ni mooy président euh, coordination daayiratul muxtafina bi asaaril aba wal ajdaad waaye di ko yëgalit alxaaji Abdou di président fédération Pape Serigne Maodo si tabaarakallaahu di koy yëgalit euh, sunu mbokk alxaaji Idrissa Gaye responsable moral bu daayira asxaabul kahfi di koy yëgal xaaji Omar Diaw Seen bi nga xam ni moo yor fédération Serigne euh, Maodo bu Serigne Babacar Sy Mansour waaye di koy yëgalit alxaaji <clears throat> Mansour jiite di responsable moral daayira Ansar waaye di koy yëgal itam alxaaji Yoro Mbeng tabaarakallaahu bi nga xam ni moo fi nekkal daayiratul ahmadiya fédération bi di koy yëgal waa abuna xadaratu tijaaniya bu Cees yëpp ci njiitul suñu mag tabaarakallah sëriñ Haadi Mbay waaye di koy yëgal itam sa jërëjëf sëñ Babacar Dieye tabaarakallahu bis baa ngoog comme ni nga ko waxee xanaa rek di ci woo dawaayir yi nga xam ne ñoo tënku ci tarixa Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yi ne fii ci Medina Fall fa tabaarakallahu ak li ko wër yëpp di jiital di woo daayira xayri wal baraka tabarakallah bu sëriñ Moustapha Sy Jamil ka ko jiite di sunu bàyyi alxaaji Mor Seck di ci woo waa daayira jeune Koskas tabarakallahu ka ko jiite di président Issa Ndiaye di ci woo daayira sibiyaanu sëriñ Babacar Sy tabarakallahu ka nekk ca bopp ba di sëriñ oustaz Pape Kane di ci woo daayira soppey sëriñ Mouhamadul euh, euh, euh, soppey Seydina Mouhamad tabarakallahu ko ko jiite di Aziz Cissé di ci woo daayira soppe Serigne kër si njiit la di Xaaji Pap Fall di ci woo daayira sopp Serigne Mbay si Abdou tabarakallahu bu sunu bayal Xaaji Ibrahima Ñang di ci wo itam daayira muxtafiina bi asaari abay wal ajdaad euh, bu Medina Fall 2 tabarakallahu njiit la di euh, Astako Ñang di ci woo daayira muxtafiina bi asaari abay bu Medina Fall 1 njiit la di bu sunu euh, wayjur Baye Alhaji Pape Diop tabarakallah sunu yaay soxna Awa Dukkure di ci woo daayira soppe Cheikh Alhaji Mansour Bal xaw mi njiit la di Alhaji Ousmane Ndiaye di ci woo daayiratul asfiya bu sunu Baye Alhaji moor Fall président ba di euh, tabarakallahu Alhaji Malick Thioune di ci woo groupe soppe Serigne Babacar Sy bi ne Medina Fall njiit la di président Serigne Fall di ci woo itam waa daayiratul rahmati mu Medina Fall di seen ak ci seen njiitu président di président alxaaji Salif Ndiaye di ci woo daayira bi nga xam ni mooy daayira Ceneba Ceneba bi ne Medina Fall tabaarakallahu ñoom xalifa Ibrahima Seen ak euh, tabaarakallahu ñun ko àndal ñëpp di leen ci woo di woo sunu mbokki ñeseen yi nekk Medina Fall yëpp tabaarakallahu ak daayiratul mutahabbina fillahi bu sunu baay alxaaji Duudu Jóob tabarakallahu daal mu mis baa ngi noonu di ci woo képp koo xam ne rek yaa ngi aju ci tariqa Cheikh Seydi Ahmed Tidiane Chérif tabaarakallaahu bis baa ngoog yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim yégale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin daayira yi nag tabaarakallaahu ak ñu bokku daayira ak ñëpp rek ci biir mouvement bi lañ aoudu billahi min asheytaani rajim la hawla wala quwata illa billahi al aliyil azim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayiduna wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi wa man iqtafa asaarahum ila yawmi ddin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw ba nu santee yàlla julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sal sunu cofeel ci sunu wasila sayid cheikh ahmad tidiane chérif radiallahu anhu ñi ngi jël suñu nuyoo teg ci nuyoo ñi fi jaar di rafet lu baax kàddu yi di ñaan yàlla li nga xam ne moom la ñuy waajal yàlla na yàlla ñu ceeg jàmm ci barki sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa salam a ah, mu mel ni rek comme ni ko mbokk yi waxee fa la ñu fas yéene jaar ah ñu ñaan ci yàlla lépp loo xam ne mébét nañ ko ci yàlla yàlla defal ñu ci lu kawe jort njort barke yonent bi barke Cheikh Sidi Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu bis ba nag muy le 11 février incha allahu ñu ñaan ci yàlla yàlla nañ ci yàlla yóbbu ba ñu weesu ko ba lépp loo xamante ni ah, mébét nañ ko ci yàlla defal ñu ci suñu njort bis ba nag ñu ciy woo comme ni ko mbokk waxe di ci woo mbokki Mbadina fal yépp di ca jiital suñu wéjur bay Oustaz Alxaaji Alioune Guèye mi nga xam ne ba lépp méttee moom moo taxawoon takk ndigam xeex lu bari ba loo xamante ni sañu ñu ko woon ñu sañ ko fi tey yàlla na yàlla gën ko fee yàggal di ci woo waa kër imam yàgg ba yàlla na yàlla dolli leeram te taas ñu ci barkeem di ci woo daaira mutamassikiina taaxi kaw di ci woo am naa xadaratu tijaani xaaji mbay di ci woo mbooleem kuy membre ci Medina Fall mboolem mag yi Medina Fall yëpp ñu ngi leen di woo di ci woo oustaz Kale Fall di ci woo suñu baay alxaaji euh, baay Moodu Sëy bu baay Habib Sëy di ci woo imam Moodu Kawsara imam Moodu Sow Kawsara di ci woo Habib Gaye mu xaddamu Serigne Mouhamadul Mansour si borom daara ji di ci woo Serigne Mansour Guèye mu xaddam Serigne Mansour si borom daara ji di ci woo imam Ndoye Diouf bu taaxi kaw Kawsara di ci woo commandant police Medina Fall di ci woo sëriñ mu Muniru Njegéen comme ni ko mbokk yi waxee di ci woo sunu wéyjur Baye Alxaaji Moustapha Ndiaye fële ci jàkkee Tidiane di ci woo Mouhamad Ndiaye bu suñu Baye Alxaaji Moor Jaxeer Ndiaye yàlla na yàlla dooli leeram di ci woo bëgg naa Diop bu sëriñ Mbay Abdou ca taaxi kaw di ci woo imam Moussa Diop taaxi kaw di ci woo Baye Moor Ñang ca Medina Fall di ci woo Moustapha Ndiaye bu suñu Baye Alxaaji Moor Jaxeer yàlla na yàlla dooli leeram di ci woo imaam mbay ñingi oustaz di ci woo baay ibrahima ñang boulanger di ci woo baay góora jóob imaam di ci woo baay mor seck président xayri wal baraka di ci woo pape diop président muxsinina wal muxsinaati di ci woo monsieur fay inspecteur en retraite di ci woo baay abdu baay abdu ñang di ci woo imam góora ka suñu baay di ci woo maire ñaaña kan suñu wéyjur di ci woo maire aw Dukuré di ci woo góor a Guèye di ci woo Baye Bande Guène suñu wéyjur di ci woo Baye Dudu Diop bu mut daahiratul mutahabina fillahi fii ci Medina Fall di ci woo suñu wéyjur imam Serigne Fall di ci woo imaam Mbay Fall di ci woo imaam Moustapha Ndiaye di ci woo Baye Modou kan di ci woo Baye Maguette seen suñu wéyjur di ci woo imam Nourou Ndaw di ci woo Oustaz Aline Guèye comme ñu ko waxe woon di ci woo mbokki jullit yépp ñu ñaan ci yàlla bis bi liñ ci sént yàlla yàlla defal ñu lu kaw suñu njort ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Sidi Ahmad Tidiane Chérif radiallahu taala anhu ñu wees koog jàmm wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaw bil xadaratayni xëbantum ahla tijaani siwaakumu min xuduri badri adnaan mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki waa Thiès mbokki Madina ñu ngi woo daayire yi nga xam ni moom la xaaji Omar woo ci ndigalu président nee na ñu sol lu weex kuy ñëw ca xadara ba ñu ngi lay ñaan nga sol lu weex macha allah am nañ fa ay col yu ñuy jaay macha allah dinañ ko génne ñëpp barkelu ci. bu ko defee kàddu yi du gudd ñu ngi woo suñu morom yëpp suñu mbokki nabien yi incha allah ñu ngi leen di ñaan ngeen teel a ñëw ndax xadara dafa laaj yëkkati sabaat kon ñu ngi ñaan nabien yi bu kenn manqué na ñëpp ñëw incha allah ñëpp sol lu weex ñu nduroole ko mu ngi noonu mbokk yi bis baa ngi noonu kon baaw Babacar ñu delloo la kàddu gi mu ngi noonu mbokk yi. kon nag bu ko defee ñu jël kàddu gi jox ko coordonnateur mouvement jeunesse Tidiane bu Medina Fall muy alxaaji sëriñ Fall monsieur le coordonnateur bismillah. Euh, jërëjëf alxaaji Babacar Dieye sunu benn mag bu baax euh, bu ñu wax Serigne si Ahmed Tidiane si Al Maktoum dafa waxoon ni neen bu ñu organiser dina dem ba ëpp doole dëgg bu ñu organiser wul ñun waa Medina Fall ñu dem ba. xam ni li fi Seydi Hadji Malick am radiallahu anhu yaakaar naa ni amu ko feneen kon nag dafay jaadu ñu xool lan lañuy ñuy organiser mooy lu ñu bokk mu ñu symboliser euh, tarixa bi fii ci Medina Fall. ci noonu nag euh, ci la xalaatee ne comme que jamono ji ñu toll njàkkare yi bëri na dëkk bi dëgër na métti na kon nañu organiser journée de prière muy ñaan boo xamante nii ñu koy def bisu àjjuma muy xadaratul juma nga xamante ni ñëpp ko bokk kon nag euh, ñi ngi ci woo képp koo xamante ni jullit nga jàppal ne rek lii xew-xew la pour ñaan ci gox bi ndax dañuy dégg ci oustaz ñuy wax ni xadaratul juma ku xamoon ne njëriñ li ci nekk dina jar nga daw ay kilomètres yi pour mën koo fekkee kon nag euh, xéewal bi buñ ko waa mouvement Jeunes Tidianes jaglalee ñu war koo def incha allah pour muy une première di la 11 février kon loolu dafay jaadu ñun ñëpp ñoo def ko suñu mbirum bopp kon ñu ngi ñaan képp koo xamante ni yaa ngi yeewoo ci gox bii di Medina Fall koo gis muy sax collègue muy ko nga bokkal école mooy ko bokkal marché bi yëpp na nga nekk suñu ambassadeur yëgle information bi ndax bis bi kat yaakaar naa ni euh, dootul ñaar ndax mooy première fois ñuy def xadara populaire fi ci Medina Fall kon nag euh, ñi ngi koy woo ñi ngi ci woo ñëpp di soññ bépp daayira ñu def ci taxawaay bu am am solo comme ni ko xaaj Pape Fall waxee incha allah bëgg nañ képp kuy ñëw rek nga sol lu weex tàll ndax l'islam couleur am mooy couleur bu weex bu ko defee rek ñu àndandoo ñun ñëpp teel a ñëw euh, ñaan suñu boroom képp koo xamante ni am nga projet képp koo xamante ni am nga euh, feebar képp koo xamante ni am nga ay njàkk njàkk njàkkare wala ay tolof tolof mu jaaree fa nekk fank fank loolu mu def bu euh, buñ ko defee ba pare incha mu nekk ñaan ba réew mi ay yi fi nar a yëpp mu nekk lu koy saafara kon loolu rek la amoon loo xamante ni danañ ko wax di ci yëgal ñëpp kon ñu ngi bàyyiloo xel ñëpp incha allah le 11 février ci kanamu hôpitalu Medina Fall incha allah jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu. mbokk julli noo leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ne ci turam ak santam. ñoo ngi leen di siyaara di leen baal xaq di leen baal xaq di ñaan yàlla yàlla saa borom ñu baal eh, suñuy kàddu du ci bari kàddu yi sant rek lay doon eh, ndax lii ngeen woote mooy def adara boo xam adara populaire lay doon su ngeen ko wootee fii ci Madina Fall képp waxuma sax ñu ne ci téléphone waaye képp kuy julli rek war na leen a wusi ndax incha allah bu ñu ko defee lépp luñ ci yéene yàlla dañu ko defal tey réew mi soxla na ñaan fi mu ne nii ndax noo ngi jëm ci ay élection te élection yooyu am na ay njàqare ñu ñaan nag bu ñu defee adra bii yàlla dàqal lu lépp luñ ci ragaloon may ñu ñu tàmbali ko ci bisimilahi rahmaani rahim mu àgg ci alhamdulilahi rabbil aalamiina te itam la ciy juddoo doon jëriñal réew yëpp yàlla saa borom may àgg ci ak jàmm ñu tàmbali ko ci bisimilahi rahmaani rahim àggale ci alhamdulilahi rabbil aalamiina maa ngi ñaan daal képp ku dëkk Madina Fall ngay góor ngay jigéen te ngay jullit mbir moom na ko def mu sa soxla bopp def ko mu sa bisu bopp loolu daal laay yëgle maa ngi ko yëgle ci turu El Hadj Bay di Faat mi xëy jàkk ji man dama ko fi xaar rek bu may wax ci kàddum laay wax lu ma fii defe ci ci kàddum laa koy defee kon nag noo ngi invité ñëpp ci bis boobu yal nañ saa borom ñu àgg si tàmbali ko bisimilah rahmaani bu jeex ci alhamdulilah bi laaj kontaan nañ bu baax seen teewaay rawatina fii ngeen ko def jàkk ji ah, te lii mooy jàkk social la lu bare bari bu ñu koy def war nañu ko mën defee ko si fii jàkk ji kon nag kontaan bu baax a baax a baax mbokk woote baa ngi noonu mooy woote sunu ay mag ku ci mel ni oustaz Alla mbay woote bii ñu woote mooy woote alxaaji Salif Ndiaye woote bii ñu woote mooy woote alxaaji Limaan Ñang mooy woote oustaz Abdoulahi Fall mooy woote oustaz Babacar Fall waaye mooy woote président issaa Ndiaye mooy woote Ibrahima sori sidibe ñoom ñooñu lañ fi toogal ngir wooteel leen waaye ñi ngi woon ak alxaaji Moustapha Diop bu sunu baay sunu maam sëriñ maxtar Diop tabaarakallaahu ñoo ngi koy woo di woo nag mbooleem imaam yépp comme ni ñu ko waxee teg ko ci imaam góor a ka tabaarakallaahu ak aima yi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam ñépp di woo sunu sëriñ sëriñ Abdul Xaadir Ngom bu ñu ko tuddee sunu xel dem na ci sëriñ Mouhamadul Bachir Ngom tabaarakallaahu ñu ngi koy woo di woo ñëpp bàyyiwunu kenn imaam yi ñu ngi leen di woo autorité yi ñoo ngi leen di woo daayira yi bàyyiwun leen bàyyiwunu kenn bàyyi bàyyiwunu fenn bàyyi bàyyiwunu ñenn ku bokk dayira ak ku bokkul daayira ñëpp ñu ngi àndandoo di leen woo ci bis boobu mu war a doon ajjuma incha allah le 11 février muy amee fii ci Medina Fall buntu centre Don Bosco incha allah fala la ñuy jullee tàkkusaan bu nu sëlmalee tàkkusaan fas yéene na noonu def wasifa incha allah bu nu wasifa ba daaneel fas yéene def xadaratul juma bu xadara bi daanoo incha allah ñu julli timis bu nu sëlmalee timis nag dinañ fa traité ñaari thème benn thème bi ku koy traité mooy oustaz alhaaji Malick Guèye beneen thème bi ku koy traité mooy oustaz Mouhamadul Mansour Sëy macha allah bu ñu paree nag ñu jox mag ñi ñu ñaanal ñu dem ba beneen yoon incha allah ñuy ñaan na kuy ñëw bul fàtte ni couleur blanche na nga sol lu weex insha allahu taala ñu ngi koy yëgal ñëpp bàyyiwunu kenn asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu